ne ñaari gaare ma fa ñaari biis xoolal bu mu xat na nekk ñett na kër gi fees kër gi laa bëgg mu wàcc parce que gar mi yëpp ak bete bete laa bëgg ñëw dalal ma xam nga Wally Seck moom du ganuk caaxaan damaa bëgg mu ñëw dalal ma fii sàjj ba mu bëri jom non wàllum xaalis moom bul ci sax détaillé xam nga man moom damaa riis man ah yow xale bu riis ngay waxal ni sama kër laa nekk maalekum salaam yow bul wax bu may dem dama lay woo yow yow laay àndal mais xam nga lu ma bëgg ñaari bii yi yow da ngay jiitu si xam nga sama xarit nga dangaa bokk ci man amul benn problème dinaa la waa damaa am gan nii ok ci kanam ok merci waa jànq namu naa la loo xewleeti xanaa waajal safar gi xam nga man moom samay sàjj di waajal sama natt bi teg ko fii ci taabal ci jëndi samay or ak samay jasneer xam nga man damaa war a baatre teg fii samay or ak samay jasneer yow xam nga ma ci sañse nga ma xam te garmi yépp laa bëgg ñu ñëw dalal ma commande dinaa samay fur yi ba pare oore rek moo ci des ak li ma war a sañse te xam nga sama géwél bi dafa war a ñëw te dama koy baatare màggal Tuubaa ngay tuuti xalaat ba duñ teral suñuy gan màggal gii sëñ bi lan lañu sant ñu teral gan ni berne leen teral leen dëkkoo leen yow tuuti nga xalaat da jël nga àdduna daal yenn ko moom nga ma xamati du gis nga daaw sama chaîne or bi xam nga ñëpp a ko doon coow ñaar laa bëgg ren xam nga man ci sañse nga ma xam ak sàjj ba mu bëri doole dangaa yàgg waane nag. àddina di du kër sa yëf la. àddina du kër de ni ko sa ci. waaleykum salaam waaw nii rek la lay ba yow bëgg àddina gi ba kañ. waaye nii la ko bëggee suñu borom da koo gërëm yonent bi gërëm ko ba tax mu ne ilay yàqal la laaxumaane njëkkuñ wala yakunu abadan di mun ko suñu borom may na ma lu dootul may keneen baaba den xoolal kii li mu doon ndax soxna jaara 33 ans rek la dund mooy fanweeri at ak ñett liggéey fi loo xam ne si moo ñu indil si Ahmadou Bamba suñu borom bàkkoo ko demoo ko mu ne ko ba bee daaw kiraama xura wa bi bàqaay inna bi usara suñu borom de demoo na ma bàkkoo na ci kanam gaa yu baax ñëpp xoolaatal li nga mel jërëjëf soxna yow na ko saytaane nga jërëjëf waa ba jiba nga yow man nga saa soo ñëwee sama kër gi rek indi fi scandale. jërëjëf. nii rek laay jógee dafa mel da ngaa nekk sama xarit ba pare soxoree ma. ay nit li mooy la wax te damaa bëgg nga soppi sa sa doxalin. du yow yaa àdduna du kër. man nag dama fee ñëwoon doomu pour nga am foo ma gunge. damaa demul sax. man tant que nii nga nekkee kay maa ngi dem. nuyu na seen waay nuyu na mbay wax ak jàpp di koon. saytaane bi yow ma la xamal naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful ma kenn tooñu la ana waa kër ga tubaarkalla da ngaa ñëwoon boor yi wala. waaw li ma fa am benn yóbbante ma jël si woon. waaw waaw ci ma fii de man doog maa fi nugum nugum maay bàyyi nugum de. maanaam de yaa ngi ci jàmm. maa ngi fii. man euh, côté euh, fii nii euh, côté. waaw xam nga miin ma fi. gën ah gan nga fi nga fi. wax maanaam fii ndox mi di taa. ci pneu yi. waaw ah, boor boobu nga dëkkee. Mhm. wax nga dëgg de <laughs> eh, yaa ngi kii de yaa ngi jonga <laughs> maag yooyu. jonee <laughs> ma ni da ngaa taaru. waaw ah, jërëjëf. kii woon de sama kii daane woon ci xel mi xel mi. Ah. waaw xam nga nag man koñ bi dama fay am baat ndax man man rek maa fi tudd nugum nugum. Mm. na lu fuy nugum nugum bi sama loxo yi lay jaar. léegi nag yàlla dogaloon. bi ma la séenee laa xam ni sa borom maanaam bi ma xëyee laa xam ni këppatal ndox ko spep maa war a <laughs> am nga borom kër. man déedéet amu ko am nga. Ah. <laughs> am nga ah, xoolal nii may def ndomba gi def naa la ko gaw naa la ba yàgg. <laughs> yow xorom gis nga xorom kese la léegi maanaam bëggoon naa bu fekk eh, juróom-ñaari fan ak yooyu. Hmm. ma jaar fan waxtaan nag lu ma jox la. maanaam ma jéem la loolu gone yi wax jël rek jël. jël dama laa bëgg a jël. astafurlah araam. Ah. Ah. bëgg a jël léeg-léeg ma wàcc wékk fa sa mbubb ñu nogo <laughs> yow sëñ xorom nga de. Ah, yàgg naa ko dégg moom <laughs> sama yëfa wallaay noonu sama wax dëgg yàlla. nooy nogom nogomi maanaam léeg nga wax ma ko makkaan ma may ñëw wékk mbubb mi su ma liggéey juróom-ñaari ndomba indi la ñeenti téeméer nuy waxtaan di fotuuti wala yow doo kii ci yooyu. non sëñ bi nga baal ma mais hmm. ñun ay royukaay lañ dañ ñooy kenn suñu maam yi. mel ni maam Jaara. soxna Mariama Bousso. waaw du ma ko baax. Hmm. ni ñu ni ñu teree ay xeesal. Hmm. ay mèche. wàllu mèche yooyu noonu. noonu la ñu aay nekk góor bu nekk suñu borom kër. doo bëggee nag mhm. da nga may fekk suñ kër mhm. tax ma ci farata ak sunna mhm. ñaan ma samay waajur ñu ma bu rafet ñun loolu lañ xam ah jigéenu Touba moom day takkante def ci farata ak sunna ah. waaye du kii ak yooyu ah doxoo ci yooyu daal moom nekkuleen ci dëgg la ah man damaa yaakaaroon nag jigéeni mbuur ak jigéeni pekkees ak jigéen ñi waa Wundeeg jigéen ñi fii yëpp benn la waaye nekk différence bari na. non yewuñ nag. ah baax ngeen de <laughs> jigéen ak daal ah, loolu baax daal moo doonoon di doxal ndànk ndànk waaye nag comme que nii nga ko waxee. Ah. te man pareeguma pour kii danaa waxtaan ak sama njëganaay bu dee jaadu na te tey lu war ma jëm faa ñëw rek ndax yow ko la am kat am soxna ndax lii nga ma wax nii ko waxutoon du ma ko xam fi ne bu ma toogoon mbuur nu ciy wax it noonu laay détaillé na ma ma ba léegi bu ñuy werante mën na maa jël paar daana jigéenu Touba taxawaalu day muuru ah di defar ah la taarkàlla ah. yéen daal kenn di yéen rek ah, yàlla na jàmm ji yàgg ki ngeen roy nag mën naa roy muy soxna Mariama Bousso nga xam ne mooy maami Serigne Mountakha mi ci jal bi loolu xam nga du yëfi gone te loolu boo ko nandiwutoon nii mën ngaa taxawaalu dajeeg benn fàq man fee rek mu këf la nangam nangam yooyu gënut nii fi ko téye baax na ndax fi ne jubbanti nga ma yar nga ma xam nga maa la mag sama ramu mbaay la waaye yar nga ma ndax nee nga man caaxaanuma di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi yéem naa ko ngir màggalam ji doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon ngi